Euh, salaamaaleykum mbokki téléspectateur Pexxe TV donc tey ñu fiy dalal suñu gan bi jeune bi nga xamante ne nii APR la bokk ñu gën ko ràññee euh, ci ndaw Néné Fatoumata Tall fas yéene waxtaan nag ci langum politique Habib Ka ñu ngi dalal. maa ngi lay nuyu di kontaan trop di am mbégte aussi ci dalal bi ngeen ñu dalal ci euh, chaîne bi mag bi di Pexxe TV di nuyu aussi internetu Pexxe TV yëpp. di euh, nuyu suñu kilifa ci politique muy euh, son excellence monsieur le président Macky Sall mi ñu booleek euh, Néné Fatoumata Tall ministre de la jeunesse di aussi suñu kilifa fii ci département bu Guédiawaay di ko nuyu di ko ziyaara bu baax a baax di kontaan ci moom aussi ci yabal bi nga xamante ni digal la bu mu ñu jox ngir ñu mën a wax ci ay émission télé wala rajo ndax ku nekk firweewu sa leader nga te ñun tey ay fruits yu nenatal lañ ay nenatal yu yu yu yu yu mat sëkk lañ toog fii di teewal suñu ministre madame euh, Néné Fatoumata Tall des responsables politiques aussi à Guédiawaye waaw comme ni nga ko waxee rek Habib doon euh, jeune boo xamante ne ñu ngi ko ràññee ci politique gu APR fii nii ci Géejawaay donc mu doon euh, jeune boo xam ne day yëngatu lool fës ci lool tamit ñu gën ko ràññee aussi ci ndaw Néné Fatoumata Tall ministre donc tey Géejawaay xam nañ fi euh, responsable politique yu bëri ku ci mel ni Néné Fatoumata Tall ku ci mel ni monsieur le maire Aliou Sall mais aussi ku ci mel ni le président Lat Diop tey jii Habib lan moo tax yow nga taamu nekk jeune Néné Tall lan nga gis ci leader boobu spécial. Euh, ma yokkal la ci rek euh, géejawaay bu ñuy wax leadership politique bokk na ci Aliou Sall bokk na ci Lat bokk na ci Modou Bousso bokk na ci képp ki nga xam ni. mu ngi dagaan di taataan euh, voix population bi mais ku nekk dafa am ay euh, critères qui lui son propres te ñun tamit bu ñuy ànd ak nit dañuy ànd ak moom ci euh, bokk ak moom ay mbébét bokk ak moom ay bëgg-bëgg ci li nga xamante ne mooy suñu bokk moomeel li nga xamante ne mooy géejawaay ñu ñëpp ñu am une vision commune pour la ville de Guédiawaye ñun ak Néné Fatoumata Tall bañ toogee ci table waxtaan ma gis ni leader la bi nga xam ne ambition yi ma am pour Guédiawaye mbébét yi ma am pour Guédiawaye moom tamit moom la am te ay nit tamit bu ñu bokkee gis-gis li olof di faral di wax ay nit bu ñu wóolante war nañoo mën a bàyyi kenn jiitu man ma wóolu Néné Fatoumata Tall ci gis-gisam pour géejawaay ma fas yéene ànd ak moom ngir ñu jëlee Guédiawaye ci point A yóbbu ko ci point B. mais Habib Ka euh, bu ma seetloo bu baax ci avant lii yëpp di xew. Mhm. nee na Fatoumata Tall elle était candidate mhm. pour euh, la mairie de Golf Sud. maintenant ñu dégg ñu ne maintenant moom mooy directeur directrice su campagne Aliou Sall et ku ne xam nañu dégg nañ ci ay euh, rumeur comme Néné Fatoumata Tall ak Aliou Sall xawoon nañoo xëccoo mbir ñàkk juboo ci mbir moomu trop léegi tey mu dem ba doon directrice su campagne am loolu nan ngeen koy dundee tey jii. Néné Fatoumata Tall mooy euh, yaakaar naa wala ma wax ni naa sañ sañ wax ne Néné Fatoumata Tall bokk na ci militante APR yu njëkk ci biir département de Guédiawaye mu nekk un leader fédérateur. nee na nekk ki nga xamante ne à chaque fois ci boole lañ koy gis ci dajale lañ koy gis donc c'est très normal aussi mu nekk doomu Golf Sud à un certain moment mu wone ay ambition pour la commune de Golf Sud loolu la def yàlla def na nag mu doon euh, xëcco ak camarade de partem muy le président euh, Lat Diop que je salue au passage euh, yàlla def le président de la république bi nga xam ni choix bi ci moom la waroon jaar mu choisir le président Lat Diop ñu koy euh, nangul choix aussi boobu bu baax a baax mais nee na Fatma Tall comme li ma doon la wax muy militante bu authentique bu loyal au parti bu loyal à la coalition bu loyal aussi au président Macky Sall c'est très normal que le frère du président en l'occurrence Aliou Sall di maire Guédiawaye soxlawaat Guédiawaye ñëw tàllal loxoom sa sœur nee na Fatouma Tall ne ko kaa ñu liggéey ma def la sama directrice de campagne parce que Aliou Sall aussi bu defee neen na Fatouma Tall campagne wàcc na ndax Guédiawaye tey bu ñuy wax personnalité politique euh, yaakaar naa kenn du teggi Néné Fatoumata Tall parce que moom mooy seul ministre bi nga xamante ni mu ngi yeewoo biir département de Guédiawaye. d'accord mais Habib Ka ñu seetlu que ni euh, Aliou Sall da doon soutenir Lat Diop ci euh, candidature bi ni mel maintenant yow mi nga xamante ne xam nga ni Néné Fatoumata Tall aussi bëggoon na poste boobu noonu kon maanaam xëccoo amoon na ñàkk réeroo xam amoon na ci diggante Néné taal ak Aliou donc tey jii man ma lay laaj. ban euh, nan ngeen di ressentir le fait que retrouvaille boobu am est-ce que retrouvaille bu sincère la est-ce que noonu na loo xamante ne nii tey c'était pas difficile pour ngeen accepter retournement de situation bi am boobu man moo ma jaaxal. Euh, déjà ma def benn rectification rek réeroo amul ay positions yi différentes la. Mm. nee na Fatoumata Tall dafa am des ambitions pour la commune de Golf Aliou Sall am des ambitions pour la ville de Guédiawaye Aliou Sall aussi en tant que leader. mën na am position am wala mën na am ku mu ku muy soutenir biir commune de Golf Sud et normal ñu accepter ko ko bu baax a baax il soutenait la candidature de Lat Diop et fort heureusement pour lui Lat Diop lañ mujj euh, choisir mais nee na Fatoumata tamit am élégance politique am flexibilité bi nga xamante ni tey ba ñu choisir le président Lat Diop pour mu jiite la commune de Golf Sud choisir maire Aliou Sall pour mu jiite la ville de Guédiawaye mu xam ni tey ndamu le président Macky Sall mooy ndam Aliou ak ndamu Lat mu ne damay jàpp damay bàyyi lépp li nga xam ne jàppoon naa ko ma ñëw battre campagne pour mon frère Lat Diop ma battre campagne pour mon frère Aliou Sall parce que tey pour que la vision du président Macky Sall puisse continuer puisse rayonner à Golf et à Guédiawaye donc il va falloir impérativement que la coalition Benno Bokk Yaakaar puisse gagner ces élections là te pour que la coalition Benno Bokk Yaakaar mën a gagné ko élection yi ñu jëm loxo nee na faatuma Tall daf ci war a dugg bu baax a baax. kon ñu mën a xam ni que ni euh, kon nee na taal tâche bu lourd lañ ko ci jox ginnaaw bu ñu nekkee candidate retourné waat nekk directrice de campagne donc loolu mu doon euh, xëy na tâche bu lourd si yéen ñi kon donc challenge pour man la boo leen war relever noonu lañ koy dundee actuellement ba xam yéen a ngi ci carrément. Euh, la tâche n'a jamais été légère pour Néné Fatoumata Tall yaakaar naa bokkoon na ci euh, list Dekkal Ngor fii ci commune de Golf Sud donc mu doon ko xeex booba léegi 2012 gis nañ li fi xew nee na Fatouma xeex ko euh, ak toutes les élections yi nga xamante ni jot na jàll fii nii nee na Fatouma Tall bokkoon na ci euh, raar jigéen yi nga xamante ni ñu ngi doon soutenir président Macky Sall dans département de Guédiawaye donc tâche bi musul facile ci moom mais nee na Fatouma Tall am na dayo boo xamante ni tey ci biir département de Guédiawaye fu mu ñu ubbil ko donc ñun ñi ànd ak moom tamit te xam ni leader suñu leader dayo bu mu am duñu def lu dul ànd ak moom ci dynamique bi nga xamante ni moom la woote muy dynamique d'union nee na Fatma Tall dafa appelé à l'union des cœurs à l'union des forces pour une victoire éclatante. mais Habib euh, Ka le ministre nee na Fatma puisque comme ni nga ko waxee dafa appelé euh, à l'union des cœurs. appelé jàmm ci biir kii bi ci biir euh, géejawaay léegi man li ma comprendre mooy ba nga xamante ni parti bi ñun benn lañ mm-hmm. APR yi ñëpp benn ngeen mm-hmm. lan moo fi jar kon fi ñaari candidature waaw merci Maguette donc yaakaar naa li ma waxoon tout au début la rek mm-hmm. Lat Diop doomi gox bi la euh, il a fait ses humanités à Golfe Sud juddoo ci Golfe Sud màggee fi jàngee fi ba am fi ay lijaasaam Néné Fatouma Tall aussi juddoo Golf Sud jàngee fi ba am fi ay lijaasaam c'est très normal ñu dem ba élection ku nekk am yéene ci sa commune yaakaar naa loolu sag la tey bu ñu amoon sax ñett wala ñeent candidat yi nga xamante ni dañuy xëccoo pour la commune de Golf duñ def lu dul réjouir ci loolu parce que day wane ne tey doomu gox bi am na jéene pour gox bi am na fu ñu bëgg a jëlee gox bi yeggale ko feneen donc c' était très normal que Lat Diop am ay ambition pour la commune de Golf et Néné Fatoumata Tall aussi am ay ambition pour la commune de Golf mais aussi ñu def ko d'une manière une rivalité vraiment vraiment très saine tey déggoo ci benn meeting Lat Diop yàq lu bon Néné Fatouma Tall wala Néné Fatouma Tall yàq lu ñaaw Lat Diop donc muy wane rek di firndeel aussi euh, relation bi nga xamante ni am na seen diggante muy muy muy relation de respect mutuel bi nga xamante ni am na diggante Lat Diop ak Néné Fatouma taal ñoom ñaan ñëpp ñu ay liet naaw euh, le président Macky Sall di ay liet naa yoo xamante ni tamit du ñu ay como ci euh, ci ci ci ci ci langue politique bi tey boo nee Néné Fatouma Tall ku yaakaar xam na ko fii ci Guédiawaye mais également ci Sénégal yëpp boo nee le président Lat Diop directeur de la LONASE ku nekk xam na ko donc ñoom ñaar c'était trop normal ñu amoon ambition yooyu noonu mais ki waroon tranché tranché na te nous tous li ñu war def mooy travailler pour la victoire de la coalition comme je l'ai dit tantôt. waaw kon comme ni ko déggee rek pour la victoire de la coalition mais ba tey euh, Habib Ka dama naan la euh, wax nga ko sànq ci sa réponse nee nga rivalité saine la ñu am mais ñun dañoo seetlu que ni la dernière fois euh, kii bi meeting bi amoon euh, fële géejawaay dama ci gisoon ay rumeur ay xeex ak ba Néné Tall doon dugg ñii di yuuxu Lat Diop Lat Diop est-ce que loolu dafay firndeel li que ni est-ce que juboo am na ba léegi ci biir ci biir coalition bi. Euh, mooy sawar répondre ci question boobu parce que lu soir même du 27 dama gis de sites internet des posés de sites sax j'allais dire. yu titre ne bagarre rangée entre les militants de Néné Fatoumata Tall et de Lat Diop il n'en est rien du tout euh, yaakaar naa li ñuy wax Néné faatuma Tall kuy la euh, Lat Diop nekk kuy donc ku ku ci nekk sa dugg si du yomb ku ci nekk mbooloo moo lay dar ku ci nekk riir ngay àndal nee na Fatuma Tall yàlla def mu mujjee dugg ci ànd ak riiram riir bi tamit ñëw euh, xam naa riir boobu la nit ñi di woowee coow waaye coow amu fa woon ndax ci meeting boobu noonu sax la le maire Aliou Sall déclaré que Néné Fatoumata Tall lay def directrice de campagne kon meeting bu dem ba ki war a tëj ki war a clôturer def déclaration une déclaration solennelle bu ñuy rafetlu bu baax a baax di ko ci remercier aussi moom le maire Aliou Sall yaakaar naa meeting bi tasul meeting bi egg na ci jàmm juste que nit ñi aussi euh, des fois dañuy prêter attention sur les gros titres or euh, la réalité et autre. Habib Ka li ma ci jaaxal mooy mbir mi rumeur yaa ngi. daw nañ jéem a contextualiser waat débat bi muy que ni Aliou Sall tey jii moom dafa doon soutenir la Diop Néné di poser candidature donc immédiatement on peut savoir que ak Néné Tall dinañ aw xaw am benn ñagas-ñagas foofu tey jii ñu retourné ñu retourné waat ñu ne Aliou tey def na directrice campagne Néné Tall politique boobu laa bëgg comprendre nu mu fa demee au final euh, Maguette euh, sànq dama la wax ni biir Sénégal wala ñi politique man ñi nga xamante ni miin naa leen ci langue politique gisuma ci ku ci ëpp élégance politique ci di Néné Fatoumata Tall je m'explique après le choix du président de la République Néné Fatoumata total dafa def une AG woote presse bi ñëpp toog mu ne leen je me plie à la décision du président de la République amoon na ñett choix nee na Fatma ba décision président wàcce amoon na ñetti choix yoo xamante ne bu ci nekk mën na ko def bi ci njëkk. kon nee na Fatma bu ñu comprendre moom. moom moom moom kan mooy kilifaam ci biir géejawaay. mën naa développer foofu noonu ci par rapport ak. choix waa vas-y. ba président tànnee ba pare amoon na ñett choix. Mhm. bi ci njëkk mooy mu ne d'accord naa ci li président def mais ànduma ak ñoom du ma du du ma campagnal kenn mhm. donc damay neutre. Mhm. bi ci topp. mooy mu ne damay def sama liste parallèle bi ci toppaat mu ne nangu naa li président def mais damay ànd ak ñoom campagne pour la victoire de la coalition Benno Bokk Yaakaar parce que kenn waruma cee gën a saf moom en toute élégance et en toute flexibilité elle a choisi la troisième option donc mooy dafay ñëw impliqué wu dans leventuel victoire de la coalition Benno Bokk Yaakaar nee na Tall ak Aliou Sall amul musul am ñagas-ñagas mhm. Aliou Sall c'était très normal mu am un candidat à taal ko loolu parce que aussi nit ku nekk am nga droit à un certain de ta nga def des choix le choix de Aliou Sall n'était pas favorable à Néné mais ça ne veut ni Néné Fatoumata Tall dafay garder une dent contre Aliou Sall loin de là ah, Néné Fatoumata Tall musul gardeel Aliou Sall une dent mm-hmm. Néné Fatoumata Tall dafa jàppee Aliou Sall comme son frère Néné Fatoumata Tall dafa jàppee Aliou Sall comme ki nga xamante ni moom mooy euh, Aliou Sall bi fi ñëwoon en 2014 di laaj voix wu Géejawaay nee na Fatoumata jàpp ci loxoom dugal ko ci kër yi présenté ko délégué yi présenté ko imam yi ba Aliou Sall gagné. kon bu ma la déggee bu baax nee na Fatoumata Tall moo installé Aliou Sall fii ci Géejawaay donc en en gros nee na Fatoumata Tall euh, Sall du kilifaam daal ci biir Géejawaay. ba xam ne na Fatoumata Tall Aliou Sall du kilifaam ci biir. Géejawaay parce que dañuy wax que ni euh, département bu nekk ci politique. dama lay posé waat sama question dañuy wax que ni département bu nekk ci politique am na ku fay Lyon de ràññee nañ Aliou Sall fii moom moo fi installé wu moo fi Lyon donc euh, structuration benn euh, parti APR dafa am ay coordination des coordinations départementales et parmi ces coordinations départementales celle de Guédiawaye est dirigée par Aliou Sall Il est le coordinateur départemental de la coalition Benno Bokk Yaakaar mais du parti APR donc képp ki nga xamante ni yaa ngi milité biir APR fii ci géejawaay tey Aliou Sall moom mooy sa kilifa mais doon sa kilifa aussi ça ne veut pas dire que ni yow doo am ay ambition pour ta commune Aliou Sall mooy kilifa képp kuy E, politique e, bokk APR fii ci Guédiawaye. parce que nga woote sànq nga ni Aliou moom mooy le coordonnateur départemental de la coalition. Habib Ka dama lay dagg foofu danga wax que ni sànq Néné Tall moom li ko tax a jóg ci biir parti bi ci biir commune bi à chaque fois. wa wa lu rawatina département bi jàmm la ak unir donc bu demee tey jii ba euh, ñoom ñëpp bokk parti bi te euh, Aliou Sall mooy doon seen kilifa tey ji Aliou Sall bu demee ba jël décision ne candidat bi mooy Lat Diop lan moo tax Néné kon di xëccoo xam nga kilifa bu nekk am na kilifaam. Mm-hmm. Aliou Sall muy kilifaay département bi mais du kilifay parti bi kilifay parti bi Macky Sall la tudd c' est le président du parti donc il est le seul habilité à faire un choix définitif. Mm-hmm. Néné Tall dafay poser ay ambition am ne bëgg naa golf Lat Diop ne bëgg naa golf Aliou Sall ne man seen diggante xeex boobu noonu Lat Diop laa faral Aliou Sall libre mu faral Lat Diop. mais ça ne veut pas dire que aussi nénatal day Aliou Sall day faral laa jóg génn ci xeex bi non non kon est-ce que ambition yi mu doon wax pour la commune. kon kilifa gi ñuy wax ci euh, Aliou Sall ci biir département bi kon rôle am exactement lan la parce que dama jàpp ni bu ñu nee Aliou Sall mooy kilifa département bi kon maanaam moom mooy gérer département bi ci ko domaine APR maanaam lépp lu fi am comme. problème ñagas-ñagas moom moo ko war a ñëkk a gën a mën a réglé bu bu ñu weesoo loolu ñu doogee dem yegg ci président donc lu ñu mën a comprendre foofu que ni Néné Tall mujjeewul déggal Aliou Sall donc du coup mu ramené euh, kii yoom di déglu président voilà euh, boo nee mujjeewul dégg Aliou Sall tey Aliou Sall ci boppam moom moo wax ma dégg mu ne ba ko Néné Tall tàggoo ne ko dama bëgg a nekk candidat moom moo bénir loolu ne ko waaw demal d'accord naa ci nga nekk candidat parce que Aliou Sall même il était conscient que ni le choix définitif doit être fait par le président du parti en l'occurrence son excellence Macky Sall donc euh, arbitre bi Macky Sall la waroon doon on ne peut pas être juge et parti on dit donc Aliou Sall la woon moom à sa propre succession pour la mairie de ville mais aussi c'était très normal que mu am ay candidats am dans les autres communes tey si on entre à Gounass y une dualité entre Baydi Ba et Omar Sané bu ñu demee Njaareem Limaamulaay gis nañ Mor Wore gis Abdou Sène bu ñu demee tey Wakhinane Nimzatt on voit Yaya Ba on voit euh, Racine Talla y avait Khafor Touré y avait le y avait le DG Modou Mamoun Ngom et c'était des des rivalités très saines des concurrences très saines waaye Géejawaay si celui kii devait trancher. waaye Habib Géejawaay dafa nekk euh, département bu particulier en fait. parce que tey jii Aliou Sall ni mu taxawee géejawaay comme ni nga ko waxee sànq kilifa la biir géejawaay te dama jàpp que ni comme ni nga ko waxee sànq président moom mooy décider d'accord waaye tamit euh, balaa mu yegg ci président Aliou Sall war na mën a gérer la situation donc bu demee tey ba euh, situation bi bu demee tey ba nenetaal ne dafay poser la candidature c'est parce que situation bi dafa mujjee dépasser Aliou Sall. non situation bi dépassé wul Aliou Sall nee naa la waxtaan mënul weesu nee na Fatoumata Tall sol daalam dem kër Aliou Sall ne monsieur le maire. je veux être candidat pour la commune de Golf monsieur le maire Aliou Sall ne ko d'accord naa ci nga nekk candidat pour la commune de Golf Lat Diop aussi en tant que fils de Golf Sud def moom aussi wax ay ambition pour la commune de Golf léegi nag Néné Tall bu taxawee def ay déclaration de candidature am Lat Diop def déclaration de candidature Aliou en tant que candidat parce que moom sax kenn candidat la woon à la candidature sa candidature n'était pas encore officielle mm-hmm. donc am na droit faral kenn tey golf c'était pas nénatal ak Lat Diop donc mhm. y avait aussi notre maman Aïda Sow Diawara danga may nuyu au passage ak euh, son bilan élogieux pour la commune de Golf mhm. euh, ñoom ñëpp ku ci nekk am nga ay ambition nénatal am ambition déclaré Aliou Sall am ambition déclaré léegi président moom moo tànn tànn na Lat Diop ñun en tant que militant du parti APR en tant que fidèle dañ ne na Fatoumata Tall li ñuy def mooy accompagner la liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar pour mu gagner dans toutes les communes du département de Guédiawaye. kon daal ñu tënk de Golfe Sud. Mhm. kon daal ñu tënk ni Néné Tall euh, Lat Diop euh, Aliou Sall jàmm seen ngi seen diggante et ñoo nar a ànd. Néné Tall a toujours été dans ce travail dans cette dynamique. Mhm. je vous je vous dis que depuis 2009 Néné elle milite pour la pour pour le parti APR à Golfe Sud bi à Guédiawaye mm-hmm. donc en 2012 bokk na ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo remporté ces élections avec 65 pour cent au deuxième tour en 2014 bokk na ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo ren ñoom ñoo gagné fii nii teg Aïda Sow Golf teg Aliou Sall Guédiawaye 2016 mm-hmm. référendum yi bokk nañ ci ñi nga xamante ñoom ñoo remporté le oui à hauteur de 62 pour cent. Mm-hmm. bañ jógee foofu 2017 ci élection législative yi bokk nañ ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo gañaloo la coalition Benno Bokk Yaakaar mm-hmm. donc 2019 bokk na ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo gañalaatoo le président Macky Sall donc Néné taal musul jóg ci liggéey boobu mm-hmm. Néné Tall durant tout son parcours politique li mu def mooy constance li mu wane mooy loyauté euh, envers le président Macky Sall te bépp combat bi nga xamante ne président Macky Sall mës na ci nekk euh, nee na Fatoumata Tall yàgg na ci dugal loxoom. waaw débat bi amoon na solo lool neexoon na mais sama mbokk internet yi xam naa dañ ko fi yamale Habib lan mooy sa dernier mot. waaw euh, lu neex du doy dañ koy dog ba beneen rek di. Euh, gërëmaat bu baax a baax mbokk internetu Pexxe TV di sant di gërëm aussi ñi nga xamante ni ñoom falaa jóge muy Néné Fatoumata taal ginnaaw ba ñu santee ndey ak baay bien sûr di sant aussi yëpp ñi nga xamante ni ñu ngi ci dispositif bi bu ma limee Moussa Tine bu ma limee Karim Ba bu ma limee Mayasin bu ma limee grand yooyu noonu ñoom Cheikh Parking yaakaar naa lim naa képp ki nga xamante ne mag nga nekk ci dispositif bi également ñoom jëwrin mais aussi du ma mën a def émission ba tëj te gërëmuma ñi nga xamante ne ñoom la nenatal di woowee la génération dorée le peuple du refus mu ñu leen di woowee communément la nouvelle génération ñu ay jeunes yu dynamique ay jeunes yi nga xamante ni dañoo loyal dañoo constant ci li ñuy def jàpp ne nataal taal bëgg ko engagé wu sans ne rien attendre en retour euh, ñoom seen engagement amul amul teguñu ko wekkuñu ko ci lenn donc ma ci lim Pape Moussa Diagne bu Cité Douane di ci lim euh, Jamilo bu unité cinq di ci lim Alioune Ndiaye bu unité 2 di ci lim Joseph Diouf euh, bu FITMIT Issa Dieng Inskara bu Las Palmas di ci lim Barxam di ci lim ñoom euh, Ouz bu unité 1 di ci lim ñoom Bilal di ci lim sama jigéen boobu di nday Binta di ci lim ñoom Xoreja Touré ñoom Awa Cheikh euh, yaakaar naa ku lim juum wala doo matal euh, bu ma bëggee limandoo ñëpp na am ñoo xamante ni du ñàkk ma fàtte leen waaye chapeau vraiment chapeau à tous ces jeunes ñi nga xamante ni matin soir ñu ngi lutter pour la cause de Néné Fatoumata Tall vraiment amuñu seen fay le président Macky Sall amul seen fay la coalition Benno Bokk Yaakaar amul seen fay ndax tey wane nañ ni la relève sera assurée pour la coalition Benno Bokk Yaakaar tey suñuy leader bu ñu tëddee mën nañ nelaw ba yandoor ndax xam ni ëllëg incha allah am na ñeneen ñi nga xamante ne ñooy porté waat le flambeau du parti APR ñoom ñoo koy yëgalaat ba ko au firmament de l' excellence et de la référence donc Maguette maa ngi lay sant aussi di la gërëm di gërëmaat waa pexe TV bu baax a baax. aussi tamit di remercier euh, sama jigéen Fana Tall di sœur ci madame le ministre di remercier aussi son frère euh, baax nga xam ne jàpp na ci bu baax a baax di remercier Adi Tall aussi waa waa kër gi yëpp. mais aussi bu ma limee ba pare te limuma ñi nga xamante ni ñoom ñoo ma njaboote ba ma am sañ-sañu tey def politique muy waa Cité Fadia damay jum donc maa ngi nuyu bu baax a baax di gërëmu waa Cité Fadia bi nga xamante ni fa laa di leen sant aussi ci jàppale bi nga xamante ni ñu ngi ma koy jàppale taxaw bi nga xam ne ñu ngi ma koy taxaw euh, ak jeunes yi ma fay àndal di liggéey mu bokk ci Ndeye Awa laa di remercier aussi waa Cité Fadia bu baax Mor Gueye euh, Papa Alioune Fall Omar Kebe Omar Kebe di jàmbaaru ne na Fatoumata Tall di ko remercier moom aussi bu baax a baax jàpp na ci euh, di remercier Moustapha Camara di sama frère di tette ma aussi ci politique sama maman Ndeye Fary Diop di nga xamante ni moom mooy responsable communal des femmes de la coalition Benno Bokk Yaakaar Ndeye Fary ku bëtam xonk biir Fadja ci Ndeye Fary la jëm Ibrahima Camara le PCA Ibrahima Thiam donc di nuyu waa Fadja aussi bu baax a baax ndax tey euh, ku ñeme dañ laa di man waa Fadja ñoo ma tette waa ñoo ma yokk fit ba mu mën a dugg ci politique mën cee percer tey donc maa ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di wax ni rek vive la coalition Benno Bokk Yaakaar vive le président Lat Diop vive le maire Aliou Sall mais vive vive vive le ministre Néné Fatoumata Tall. waaw euh, salaamaaleykum mbokku internetu Pexxe TV donc euh, man la Pape Moussa Euh, ñu gën ma xamee ci PMD donc juste euh, ma indi ay quelques précisions rek ci li nga xam ne sama camarade de parti bi wax na ko fii léegi muy euh, Habib Ka ñu xam ne la coalition Benno Bokk Yaakaar c'est une famille et que tey jii par exemple kii ne dama bëggoon doon candidat kële ne dama bëggoon doon candidat ça veut pas dire que ne on n'est pas une famille voilà choc des ambitions day am mais tey jii ki nga xam ne mooy suñu kilifa di le président euh, Macky Sall su choisir ne tegal leen ma fi Lat Diop on on obligé de nous plier ci li nga xam ne mooy décision am euh, di préciser aussi tamit que tey jii ki nga xam ne mooy le maire Alioune Sall def na directrice su campagne madame le ministre Néné Fatoumata Tall donc di ko rassurer di ko sant aussi tamit si choix boobu nga xam ne porte na ko ci moom donc di ko xamal ne lii nga xam ne dénk na ko ko. dinañ ko liggéeyal à la base commencé ko ci golf sud bi nga xam ne fa lañ jiitalee le président Lat Diop ànd ak moom liggéey ak moom jël ndam li teg ko ci loxoom jàll département Guédiawaye liggéeyal ko jël ndam li teg ko ci loxo le maire Alioune Sall soo ko sant gërëm le président Macky Sall ci confiance bi nga xam ne amoon na ko jox ñu ko ci ci ci lim ñu dénk waaw donc di di ko rafet lu baax di remercier aussi tamit toute la jeunesse républicaine de Guédiawaye particulièrement celle de, de, de Golfe Sud, Dylan Wachne, euh, on a un défi à relever. Voilà, on le fera ensemble dans l'unité et aussi tamit dans la sérénité, dans le respect aussi. jërëjëf. salaamaaleykum maa ngi ziar mbokk internet pexe TV. maa ngi tudd Issa ñi may woowee Inscra ma bokk ci jàmbaaru Néné Tali di ziar suñu kilifa nga xam ne moo tax tey ñu toog fii Néné Fatoumata Tall bu ma fit toogee di wax lu bëri ci Néné sax fii la ñuy fanaan. parce que gars yi wax nañ lépp ba pare wax nañ lépp man leen laay dooli rek pour mbooloo mi xam ko nee na Fatoumata Tall jàmbaar la liggéeykat la jigéen bu mun góor la gëm na boppam te ñu ñëpp moo ñu njaboote nee na dafa ñoo yaatal fépp fépp ñun amuñ ase accès interdit kër Néné taal fépp la ñuy dugg nee dañoo jàppee ni ay doomam ba pare tout le temps nee na dañuy yee di ñu wax ne lépp lu ñuy dugg nañ ko dem ci discipline discipline lay wax sa jour nee na loolu rek la mos a woote discipline discipline ñun waa taal Tali xamuñu ay discipline la ñu nee na yaree te incha allahu rabi campagne yi di ñëw ci la ñuy doxee di ko doxe ba gañe wasalaam maa ngi jégalu waat bu baax